ci dibeer gi dëppook ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru février atum 2021 di fukki fan ak juróom benn ci maamu koor atum 1442 ginnaaw gàddaayu yonent bi salallaahu alayhi wa sallam door nañu yeesalaat ak soppi lenn ci jumaay passoire ji nga xam ne moo nekkee ci diwaanub Kaolack te Serigne Cheikh Ndiaye nekkoon jëwriñu Serigne Abdoul Khadr Mbacke taxawaloon ko fi ci atum 1992 ci ndigalu Serigne Saliou Mbacke ginnaaw bi mu defee ay at yu bëri nag jumaa ji laajoon yeesalaat tax ba liggéey bu ni mel daara baax Bagdad fas yéene cee soobu moo tax tey jii bi ñu xëyee door nañ première phase bi mu jëm ci dindi mbooleem li nga xam ne moo nekk ci jumaa ji di mbaar mi ak li nga xam ne moom moo nekk bant yi fi nekkoon ak zinc yi ak lépp daal leen di roñ tuxal leen ci beneen i barab waaye nag ginnaaw bi daañu daaneel ñaari sooroor yi nga xam ne dañu leen fas yéene yeesalaat taxawalaat fi yeneen i sooroor ak yeneen coppite yu bëri yoo xam ne fas yéene nañ ko def ci jumaa ji jëwriñ yi nga xam ne ñoo ngànk liggéey bi bi ñu xëyee ñëw nañu ànd kook ñi nga xam ne ay taalibi lañ ñëwoon doon ci jàpp ngir roñ bagage yooyu le waaye doon saytuwaale li nga xam ne moo jëm ci installation courant bi nga xam ne war nañ koo dindi laata ñuy daaneel soroor yi liggéey bi nag nii lañ koo fas ne jàppee ànd kook mbooleem jullit yi ak mbooleem taalibe yi ak képp koo xam ne bëgg na cee taabal ñaxam ànd ak daara Touba daat liggéey bi nga xam ne moo jëm ci yeesalaat jumaa ji nga xam ne moo nekk ci Passoire nekk jumaa ju njëkk joo xam ne ay taalibe murit ñoo ko taxawal ci doonu Kaolack الحميد لربنا لك وللمحسن وتم داري عن الفجور والفسق والباطل في دوني وتترك الصلاة الإصابة هداني وهدي الرجابة وتضرب الصلاة jaaba